li ñuy dund moom métti moo tax tey ñu am sañ-sañ ñëw taxaw fii di ko jooy bëgg juste euh, li nekk ci suñu baram bi journée 2000 francs bi moom lañ jóg pour xeex parce que tey jii gis nañu fédération patron parce que jàppale ñu tey jii bu doon ñun la ñuy jàppale kon donc bu lii amee ci ñun la ñu war a ñëw comme ñoom ñoo ñu fédéré mais man dama jàpp ni ñoom boulanger patron yi la ñu fédéré moo tax ñu it ñu jóg pour xeexal suñu bopp baram bi mooy code de travail journée bi mu wax journée 2000 bi du yoon parce que tey ji boulanger tour rek dem na ba deux 3200 yooyu la ñu bëgg ñu delloo ko boulanger tour yi pétrisseur bi ak contremaître bi tamit noonu baram bi tamit journée baa ngi foofu loogi ñun loolu la ñu bëgg pour ñu respecter ko oui là buñ ko respecté wul fii ak premier jour koor gi dinañ ànd ak ñoom ci grève bi parce que ñoom déjà seen grève bi ñoo ngi nii gëmuñu ko parce que lan la kenn ku ne foofu seen intérêt la ñu topp parce que tey jii fédération boobu noonu nga gis noonu kenn ku ne man leer na man yor na boulangerie boppam. man la benn instant ñoom seen intérêt la ñuy xool mais xooluñu intérêt boulanger yi moo tax ñun bañ ñu woowee ñun dañuy dem liggéey parce que journée lañ am ak ñoom mais ñun jour bu ñu demee ba décider suñu grève bi bu soobee yàlla moom dëkk bi kenn du am buur bu soobee yàlla.